wala xawla wala quwata illa billahi alali alazim ñu ngi ci téere bii mu bayyinul ishkaal muy jàngale xam-xame aruut waxoon nañ ne juróomi daayira ñoo am daayira bu nekk benn baxru dëkk fa ak ya juddoo ci moom daayira bu ci njëkk moo di muxtalif baxru yi ca dëkk jàng nañ ko ak la ci aju daayira ñaareel ba di amoon waafir ak kaamil moom lañ jàngoon ci suñ bind bu mujj ak la ci aju daayira ñetteel bi moo di ñetti baax wa fa dëkk hazaj moo fa dëkk jur rajas ak ramal daayira boobu lañ war a jàng ak ay baaxoon tey incha allahu rabbi hazaj mooy cosaan ci daayira mustabi ñaari mafailun la waxoon nañ ne lu dul mujtalib ak muttafiq juróom benn xaaj la war a doon kon nga déggee si ne hasaj dañ koy def jazu ci lu war maanaam dangay dagg ñaari xab yu mujj mujjee muy mafailun ñeenti yoon juróom benn yoon la war a doon ñett ci benn côté ñett ci beneen côté muy benn béyti waaye da nga koy def ñeent ñaar ci côté ñaar ci côté mu di mu di bayt mafailun mafailun loolu mooy xaaj bu njëkk bi benn aruud la am mafailun mafailun am ñaari darb mën ngaa wax mafailun mafailun mu jeexee mafailun mafailun kon darbam bu njëkk mën naa nekk mafailun mën ngaa wax mafailun mafailun mu jeexee mafaayin yi jeexlukaay bi nekk mafaayin yi muy darbu ba kon moom ñaari façon lañ koy wooyee danaan mafaayilun mafaayilun mafaayilun mafaayilun wala nga ne mafaayilun mafaayilun mafaayilun mafaayi ñu neexalee ko fuulun loolu loo ci déggee mooy xasaj dafa am benn aruut ak ñaari darbu misaalam arut bu njëkk bi ak darboom te mooy yëpp jeexee mafaa'ilun xaj bu njëkk bi jeexee mafaa'ilun bu ñaareel bi jeexee mafaa'ilun misaal wax hazajna fi aghanikum wa shaqatna maanikum fi mafaa'ilun aghanikum mafaa'ilun وشاقتنا مفاعيل معانيكم مفاعيل وين شن كاد ينهي ما انا يغي اندي نملوني بغلوني ويو من غا واخيت مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل هم لا واجي واخني وما ظهري لباغ الدي من بالزهر الزلولي وما ظهري لباغ الديم بالظهر الزلولي sama gannaaw gi de ku ma bëgg tooñ nekkul gannaaw gu yomb dégg nga boo ko doon kii tagg dana wama zahri mafailun li baaxi day mafailun mi bi zahriz mafailun zaluli faulun mafail ñu neexalee ko faulun kon xasaj amul jafe-jafe moom noonu lañ koy wooye moo jur rajas moo jur ramal léegi ba nga commencé ci mafa da nga am mafailun mafailun ñeenti yoon loolu mooy juróom-ñetti juróom-benn yoon la war a nekk nag juróom ñetti yoon la war a nekk ci xaj bi mafailun mafailun mafailun loolu la war a nekk waaye nag boo koy woowee ñeent rek lay nekk commencé ca iiga ca sabab boobu iilun mafa mooy mustafilun iilun mafa mustafilun iilun mafa mustafilun iilun mafa mustafilun gis nga kon ba nga xobbee génn nga si rajas mustafilun ñetti yoon nga ci am boo commencé ci in gi ba sësaat ci mafa in gi nga commencé woon noonu dafay nekk inilun mafa mustafilun inilun mafa mustafilun inilun mafa mustafilun ba nga xobbee ñetti mafa ilun yi da nga am ñetti mustafilun dégg nga <coughs> moo di rajas nga xobbiwaat lun mafa lun mafaai mooy failatun lun mafaai failatun lun ma faa faailaatun moo di ramal kon ramal ak rajas ñu ngi leen xobbee ci hazaj boo ne ma faa am nga mustafilun boo ne lun ma faa am nga faailaatun ah lun ma faa rek noonu lañ maasee faailaatun te bokku maska bokku xaraka sukkoon ak ak ak maska yëpp ñoo ko bokk kon hazaj lañ xob bi génnee ci rajas ak ramal moo tax ñoom ñu bokk daaira mushtabi ñoo bokk daayira ndax lan ndax ñoom ñëpp xasaj moo leen jur jàng nañ xasaj rajas moo ci des rajas nii ñu ko xobbee jàngal na ne ñetti mustafilun rek moo di rajas mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun kon ñaare mën nañoo niroo arut beeg darab bi yëpp arut bi nag mooy xab bu mujj ci xaaj bu njëkk bi darab bi mooy xab bu mujj ci xaaj bu njëkk bi mooy xab bu mujj bi mooy mustafilun bu mujj maanaam tafila bu mujj loolu mooy arus dar bu mooy mustafinu bu mujj ci xaaj bu mujj ba xam nga ñett nga def ci côté bi ñett ci côté bi loolooy benn béyti ñett yu njëkk yi nag xaaj ba ci mujj rek kooku mooy arus bi ñett yu mujj yi xaaj ba ci mujj moom mooy darbu bi kon ñetti mustafilun mooy mooy rajas mustafilun mustafilun mustafilun nga jeexalee ko mustafilun tamit mustafilun mustafilun mustafilun man ngaa wax mustafilun mustafilun mustafilun ضرب وديها مستفعل يعني مستفعل مستفعل مستفعل مفعول رجس نك مومن تو دي حمار الشعراء دنيش نيو ندخ لم نانغو دا فا بري واي كات بو بوجا ويلو يوم دال موم غاي نيو دنج مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل ولا ناني مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مفعول نكو يخل بوكو واي مو benn arut la am ak ñaari darb arut bi mustafilun la nekk darb bi mën naa nekk mustafilun wala mu nekk mafulun mën nga koo def mashtuur mm, dégg nga déedéet mën naa loolu koo def majzuu loo xam ne dañ koy def jazu mooy ñu dagg ñaari xaaj yu mujj yi arut bi ak bi ñett yoon la war a nekk mustafil boo ko defee jazu jazu gi nag dafay dagan rek bu neexee nga bañ ko def boo ko defee day des ñaari mustafilun mustafilun mustafilun foofu moom arut bi benn la darbu bi benn la te ñoo niroo yëpp mustafiru la boo ko wayee ñeent ñaar ci côté ñaar ci côté muy benn béyt mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun rek lay doon noonu nga koy wayee bam jeex mën nga ko def mashtuur mashtuur bi nag boo ko bëggee xam mooy dangaa dagg xaaj bu mujj ba mustafilun juróom benn yoon la mooy benn béyt yow nga dagg ñett yu mujj mu nekk ñetti mustafilun rek moom nga woyee bayt bi ba mu jeex noo koy xàmmee moo yëppay bokk daaneel yëpp ñooy bokk daaneel sabaat bu njëkk bi bu njëkk bi fa mu daaneel rek yeneen yi foofu lay moom la waa ji wax ne maa haaja ahzanan wa shajwan xat shaja boo gindee boo bës boo euh, gëstoo bayt boobu da gis ne bayt bi yëpp jaa la jeexee jaa jaa parce que bu nekk dañ koy jàppee baytu boxam boo defee mashtuur mooy bu war a nekk juróom benn xaaj da ngay dagg ñett ya kon way bi yëpp ñett benn amul sax darbu xarul rek la dañuy wax ne xarut ak darbu waaye boo xoolee xarul rek laa am ndax benn xaaj bi rek moo fa nekk benn xaaj boobu nag way bi yëpp bokk fi mu yëpp ay bokk fi mu loolu mooy rajas mashtur ñetti mustafilun rek la waaye da ngay def mustafilun mustafilun bu njëkk bi fa mu jeexee xaraf ba mu jeexee boo indiwaatee ñetti mustafilun maanaam euh, bu mujj bi euh, xaraf bu mujj bi foofu lay jeexee ñooy bokk daaneel ba way bi jeex loolu mooy rajas mashtuur kon rajas mën nañ koo def mashtuur mën nañ koo def man xuuk man xuuk mooy bu mujj ba juróom xaaj la nga dagg ñett yu su ko defee ñett yi nga dagg benn loolu mooy man xuuk ndax ku xam nga mooy xalak waaye koo dagg genn wàllam ba pare mu desee ñett nga daggaat beneen ba daanaka xaw nga ko xalak loolu tax ñu tuddee ko man xuuk hmm? boobaa ko ñaari mustafin rek ngay woye waaye nag yëpp ay bokk fi ñu daanale moom la waraqa waxoon yaa laytani fiha jaza axubu fiha wa ada gis nga axubu fiha wa ada nekkul ne dafa mottali bayti bi déedéet moom baytu boxam la yaa laytani fiha jaza baytu boxam la axubu fiha wa ada baytu boxam lam ci tegel yëpp ay lay mujje loolu mooy rajas man hub mustafilun mustafilun yaa laytani mustafilun fiha jaza mustafilun أخب في متفعل هاوى أدع مستعل وما ليس من هو ñaari yoon kon rajas mën nga koo matal bu njëkk bi aaróot bi su ma waxee aaróot rek war ngaa xam ne ma bëgg wax bu dee ñetti xaaj la bayt bi bayt bi nu mu par juróom benn la te loolu lu bokkul si daayiratul muxtalif ak muttafix juróom benn la war a nekk xaaj bi ñett lay doon xaaj bëri ñett lay doon tafxiila bu mujj nag ci xaaj bu njëkk bi kooku mooy arut bu mujj ci xaaj bu ñaareel bi mooy darb dégg nga rajas bu matee benn arut la ak ñaari darb arut bi mustafilun lay jeexee darb bi mën naa jeexee mustafilun mën naa jeexee mustafil bu fekkee da ko def jazu benn arut la ak benn darbu yëpp mustafilun yëpp xarut bi mustafilun lay jeexee darbu bi mustafilun lay jeexee loolu di ñaari xarut ak ñetti darbu boo neexee nga def ko mastuur ak manxuuk boo ko defee mastuur nag ah foofu mën a wax man nga mën ngaa tuddee ne xarut beeg darbu benn lay doon waaye boo xoolee amul amul amul darbu xarut rek la bu njëkk rek la amul xaaju ñaareel boo ko noonu la amul xaaju ñaareel boo ko defee manxuuk amul xaaju ñaareel parce que foofu am ñu du ko kontaale am na ñuy wax ne rajas ñaari arud la am ak ñetti darb ko jazu mustafilun jeexee mustafilun nga matal ko mustafilun jeexee mustafilun wala mustafil ñii de wax ne rajas am na ñeenti arud ak juróom benn darb dañ cee boole mastuuf boo ko defee mastuur ñu am na arud boppam man huuk am na arud boppam waaye yëpp la rek léegi dañoo wax arud ak darb foofu waaye am fa ndax la daaneel bayt ba baytu boppam la du xaaji bayt boo ko defee mastuur xab bu nekk bayt la mais duñ ko tuddee xaaju bayt moo tax yëppay bokk fuñ daanale boo ko defee man xuub tamit noonu su ko defee rajas alam yooyu mooy yi gën a siiw ci yuñ koy woye nga joxe ci misaal dégg nga moom la waa ji wax ne rajas bu mat sëkk akrim bihi asfara raaqat sufratuhu jawaaba afaqin taraamat sufratuhu bu maqaama borom maqaama andi akrim bihi mustafilun asfara raa muftailun qad sufratuhu mustafilun gis nga am nga xaaji bayt jawaabu a mustafilun faaqin tara mustafilun mat sufratuhu مستفعل كون بوبو نم جيخي مستفعل شي نياري خاج نياري خاب بيت ييب مستفعل لا جيخي كون كوك دافا وايي مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل عرفت نياري با موي مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مفعول موي لا واجي واخني لا خير في من كف عنا شره ان كان لا يرجى ليوم الحاجه <laughs> ليس نينا كو خامني داف مي فغال حيام رك واي سوما مي سوخلا مونو سي دار نينا كو هيو نيكو سي موم انكاي يو سي موم باسكو بول تيكون حي مو غنا ميت دنگ لا خير في مستفعل من كف عن مستفعل نا شره مستفعل ان كان لا مستفعل يرجى لي يرجى يرجى ليو مستفعل ملحاجة مفعول ملحاجة mafuulun maanaam niñ maasee mafuulun mun nañ maasee mel xaaja maska sukkoon maska xëcc xëccaan foofu foofu sukkoon sax benn la maska sukkoon mel xaaja loolu moo di misaal mi bu dee rajas majzua buñ def jës u mooy buñ dagg ñaari xab yu mujj juróom benn mustafirun la nga dagg xarul beeg darba bi mu nekk ñeenti mustafirun waaye waaye la sosoon ci amul bi ak dar bi bu ñu weer am place amul bi ak dar bi foofu mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun la la mu wuteeg rajo man xuuk nag mooy man xuuk moom boo xoolee bu nekk xam boo xam ne yëppay bokk daaneel waaye fii moom ñaari mustafilun génn wàllu béyti la yeneen ñaari mustafil moom moo tëdd béyti bi loolu la ñu wutee bokkul hasbi bi ammi in nafa ma zull illa fi tama hasbi bi am mustafilun مي إن نفع مستفعل مزل إل مستفعل لا في تمع مستفعل كوغو مجزولة مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل دنو كي بيبم ونجيخ يرجس مجزول من غورب مشتور ما lu waa ji wax ne moo waxoon naa baytu bu léegi sax mu ne dégg nga ma فوفو رجل مشهور ما هاجا أح مستخيل دنجا زان وشج مستفيل وان قد شجا مستفيل لكن نك بوران بقول بيت بيب جالي مجي جالي مجي لول مي مشهور سوغر في من هو تمت موي يا ليتني فيها جزع يا ليتني مستفعل fiiha jaza mustafilun yëpp ah lay ayn lay mujje ayn guñ sukkoon waaye bu nekk bayt boppam la du xaaju bayt loolu mooy rajas mën a wukk su ko defee anam yooyu daal mooy yi nga xam ni moom la rajas am ñu ñëw ci ramal wax naa léegi ne rajas nag ci xasaj la génnee ramal fa aynaatun rek la ñaata yoon la war doon juróom benn yoon parce que daayira mustabi la te daayira mustabi li ci bokk juróom benn xaaj la war a nekk comme ni ñu ko jàngoon kon faa'ilaatun juróom benn yoon moom mooy ramal faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilaatun ñetti xaaj moom mooy xaaju béyt xaaju béyt waaye nag booy way dana am changement da ngay xarut bu njëkk bi faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilun ngay wax faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilun loolu mooy xarutam bu njëkk bu fekkee dafa mat am na ñetti darb maanaam am na ñetti daane ma nga wax faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilun comme moom wala nga ne faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilaatun daaneel bi laay wax wala nga ne faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilaan kon ramal booy bay danga am faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilun benn bu la neexee nga daanelee ko faa'ilun kon sa woy yooyu dafay tëggoo faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilun faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilun bu la neexee nga daane laa ko faa'ilaatun bu baa sabab yi dafay tëggee faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilun faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilaatun bu la neexee nga daane laa ko faa'ilaan su boobaa sabab yi mi tëggee faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilun faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilaan su boobaa kon da ngay gis ne ramal bu fekkee dafa mat dafoo ko jëzu dana benn aruut ak ñetti tark boo ko defee jëzu moom it dana benn aruut ak ñetti darf mën nga faa'ilaatun faa'ilaatun def ko ñeenti xaaj da nga dagg xaaju mujj jës bu nga ko def mu jeexee faa'ilaatun faa'ilaatun comme moom kër boo neexee nga wooyee faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilaatun wooyee noonu ba mu jeex boo neexee nga ne faa'ilaatun faa'ilaatun daanalee faa'ilaataan muy faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilaataan hmm? wala nga ne failatun failatun failatun kon ramal ñaari aruut la am ak juróom darb bu matee failun rek lay daane foofu am na ñetti darb mën na daane failun mujj ga mën naa jeexe wala failatun wala failaan boo ko defee jëzu failatun lay daane failatun failatun boo ko defee ñeenti xaaj rek mën naa daanele fa euh, failatun failataan wala failatun failatun wala failatun failun loolu mooy li aju ci wàllu euh, baxru ramal kon loolu mooy li aju ci wàllu ramal misaal nag bi nga xam ne failun la jeexee dégg nga bu njëkk bi ak failatun mooy la waaji wax innama dunya gururun kulluha مثل لمع الآل في الأرض القفار إنما الدن إنما الدن فاعلات يا غرور فاعلات كلها فاعل مثل لمع فاعلات آل في الأرض فاعلات ذي القفار دل قفاري دل قفاري فاعلات دل قفاري فاعلات كن سوف إنما الدنيا غرور كلها مثل لم الآل في الأرض القفاري دعني كسر ريجي سوى منك فاعلات فاعلات فاعل فاعلات فاعلات فاعلات بنيك بعدين مثال بني آل بيت بوبرت boo ko jëlee da nga am faa'ilaan maanaam bu bayt bi nga innama dun faa'ilaatun yaa gururun faa'ilaatun kulluha faa'ilun mislu lam'il faa'ilaatun alifil ar faa'ilaatun dil qifaar faa'ilaan boo defee dil qifaar faar muy faa'ilaan kon faa'ilaatun faa'ilaatun faa'ilun فاعلات فاعلات فاعلات ولا فاعلات فاعل فاعل فاعلات فاعلات فاعلا نهاية ربيت بما نكون مثال إنما الدنيا غرور كلها مثل لم الآل في الأرض القفار كوكو فاعلات فاعلات فاعل لا فاعلات فاعلات فاعلات بو سكون قفارنا منك فاعلات فاعلات فاعل فاعلات فاعلات فاعلان مدس فاعلات فاعلون فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعل بما لواجب لا تقل أصلي وفصلي دائبا إنما أصل الفتى ما قد حصل لا تقل فص فاعلات لي وفصلي فاعلات دائبا فاعل إنما أصل إنما أس فاعلات للفتى ما فاعلات قد حصل فاعل فاعل كن فاعلات فاعلات فاعل مجيخ فاعلات فاعلات فاعل, فاعل, فاعل, فاعل loolu mooy bu fekkee dafa mat dégg bu fekkee da nga ko def jës u nag moom la waa ñuy wax ne mu jeexee ñaar yëpp jeexee faa'ilaatun moom la waa ñuy wax ne kullama absartu rab'an xaaliyan faada dumuu'i ndeysaan saa yi moo gisee barab bu ràpp rek sama moom ko ñu tuuru xëy na dafay dafa ñu koy fàttali kullama ab faa'ilaatun su sartu rab sartu rab'an faa'ilaatun xaaliyan fa faa'ilaatun دالدموع فاعلات كوغ فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات لوي دين اه مثال بنيا بما فاعلات فاعلات فاعلات فاعل ولواج هنا قل من ينقاد للحق ومن يصغي له نونو كوي همت تي توب دغ نونو كوي دغلو دغ دين قل من ين فاعلات قاد للحق فاعلات قوما يس فاعلات غيله فاعل كو فاعلات فاعلات فاعلات فاعل لا آه، لا ويه فاعلات فاعل فاعلات فاعلا تان من لا واجي آه، وحنون يا هلال يا هلالا في تجليه wa qusayb wa qadiban fi tasannihi boo feeñee mel ni hilaal booy njeegat mel ni banqaas boobu di jaay kooku faailaatan la jeexee yaa hilaalan faailaatun fi tajalli lii fi tajalli kooku moom faailaatan la ko def nag dafa nekk ci béyt bu njëkk bi moo tax mu def ko tasriya ñaar yëpp bokk mën naa nekk waaye failaatun nag lay yeneen bayt yi di jeexee wa qadiban failaatun dafa dagg alif googu fii tasannii failaataan fii tasannii failaataan ñaari sukkoon yu dajee nga fay gis su defee loolu mooy li nga xam ne aju ci baxru daayiratu mushtabih ñu desee ñaari euh, daayira insha allah beneen yoon danañ ko jàng mottali ko in uridu ila islam mastata'tu wa tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu